bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waa machmo waqul jaa alxaqu wa saaqa albatilu inna albatila kaana sawufa eh, waaye maa ngi nuyu waa machmo bi yëpp di leen siyaara xam naa ñaari photo yi ma dugal fii eh, kenn ki di al oustaz Cheikh Dramé mu ngeen baaxoo di gis mu nekk ci groupe bi fan yi yëpp di wax lépp loo xam ne rek moo di gis-gisam ci alquran ak li nga xam ne moo di diina yàlla ji waxoon fi itam parcours am jëmee ko ci wàllum njàngam waxit fi mu bokk ci Sénégal wax ay jaar-jaaram gannaaw bu mu jàngee itam nekk koo xam ne yàlla dogal na sax mu móodu ji waaye mu dellu si rek mel ni ku xër ci diine gëm ne war naa bokk ci ñi nga xam ne dañuy leeral diine ba tax guddi ak bëccëg subaak ngoon mu ngi ci réseaux sociaux yi rawatina ci waxul jaal xaqu andi fi ay mawduwaat yu bari waaye mu mel ni keneen ci beneen sëriñ bi mu di al oustaz Cheikh euh, Chérif Mballo mi nga xam ne yéen ñëpp xam ngeen ko ci palato yi ci télé yi waaye ci réseaux sociaux yi ci ndaje yu mag yi ak bépp xew-xew boo xam ne am na ci biir Sénégal ak ci adduna bi mu koy fekkee moom it di nitu koo xam ne l'islam moo ko ñor ak dajale nit ñi waaye itam ak tabe gu toll ni fépp fu mu fekk lu baax jël ko lépp loo xam ne dafay tuutal diine loola mu koy jéem a faxas ci heure bu ne ñu bare bari nag di laaj Dramé fu mu jàngee drame mooy kan Dramé ndax sénégalais la Dramé ndax ci réew mi lay dund ndax Dramé xam na lan mooy jàng ak fan mooy jaar-jaaram Dramé ana ñan ñooy génération Dramé ana ñan ñooy àndandoom ci xam-xam ci wàllum culture ak li nga xam ne moo di diine ak jàng ci mboolem fànn xam-xam yi ana ñan ñoo doon toogaale kaayam ana ñan la bokkoon euh, ban di jàng wala ñu bokk lu ñuy incarné Dramé lan la defal réewam ci lan la nekkoon waaye Dramé moo di kan dañ koy laaj kii nga xam ne moo di al oustaz Cheikh Chérif Mballo moom mi nga xam ne am na lu mu xam ci moom ci génération te bokkoon nekk ak moom kon al oustaz Cheikh Chérif Mballo ñu ngi lay wax dal ci sa kër ndax fii yàgg nga fi def waxtaan ndax ñàkk jot geek yeneen yitt moo tax ñëw la waaye sañoo ko bañ ndax fii sa place la te ñi fi nekk ñëpp ñi say doom lañ ñi say jarbaat waaye ñii di sa rakk kon tafaddal incha allahu taala nuyoo ba noppi minutes yi nag bu mënee di nekk trois minutes moo gën asalaamaaleykum wa rahmatullah kon bismillah bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina wa nabiyina abil qasim al mustafa muhammad wa ala alihi tayyibin atahirin wa sahbi fudati al mayamin ñu ngi leen di nuyu di leen euh, balu àq di leen ziar ci ziar yi gën a tedd ci gën a fegu ci gën a teggine ci group bi yëpp ñi ci bokk euh, di am mbégte lool di ci jiital sunu mbokk sunu xarit sunu walëre oustaz Boubacar Diallo ak euh, oustaz Jibril jëpp ak mboolem ñi nga xam ne ñoo ngan ko groupe bi gannaaw bi nga xam ne toog nañu as diir ñëwuñu ndax ay itte ak ay zuruf di amaan lool di ñëwaat ci di la nuyu bu baax nag yow rawatina Cheikh Boubacar ci say majhudaat yi ngay def pour xam-xam pour diine am ci mbégte lool jërëjëf aleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu al oustaz Cheikh Chérif Mballo ngi lay nuyu di la siyaara xam naa tuumaranke woo waaye yaakaar naa ñi nekk ci group bi ñi la xamul bariwul xam naa gannaaw bu ñu la fayee nuyu di nuyu njaboot gi yépp di nuyu mboolem adaraat yi nga xam ne yéen koy am di yitte li nga xam ne moo di diine ji ci lu mu mën a doon eh, ñu ngi am mbégte nga dellu siwaat ci ëtt bii nga xam ne miin nga ko waaye de li tax tey ñu indi la ñaari mbir la mooy jëmm ji nga xam ne ñu ngi jël photom boole ko ak sa foto jël li nga xam ne moo di daara waxul jaal xaqu yen leen ko ci seeni bopp moo di ndax jëmm ji xam nga ko boo ko xamee foo ko xamee ci lan nga ko xam ak lan la yitte woon ak lan mooy dëgg-dëgg nag maanaam yitte kii nga xam ne nii moo di al oustaz Cheikh Ahmad Dramé mën ngaa yaatal ba juróom ba juróom benni audio incha allahu taala jëmee ci jëmm ji di Cheikh Ahmad Dramé incha allah. bismillahi irrahmani irrahim mbokk mi ñu ngi lay ziare bu baax di dellusiwaat euh, ci groupe bu am solo bi nga xam ne groupe bu xam-xam la groupe bu dekkal ak dundal diine la euh, groupe boo xam ne ay soppe ñoo fi nekk ak i xame di rafetlu trop seen taxawaay ak ni nga xam ne noonu lay demee oustaz Ahmed Dramé nag maa ngi ko xam depuis mille neuf cent quatre-vingt-cinq ci PUS muy union pour le progrès islamique du Sénégal al ittihad li taqaddum al islami fi Sénégal bu alaaji Moustapha Niang nekkoon ancien maire de Tivaouane di doom ci alhaaji Moussa Niang nekkoon muqaddam Sidi Haaji Malick moo ubbi woon euh, centre Faysal mu fexe jël ci arabisants yi ñoo xamante ne wóolu na seen xam-xam kenn ku ci nekk mu teg la ci fànn man ma féete woon nag bibliothèque bi maanaam lépp loo xam ne kàggu la moom Ahmed Dramé mu féete ci lépp loo xamante ne ni dafa jëm ci wàllu tradition entre arabe ak français mu nekk nag koo xamante ku am xam-xam ci ni nga xam ne noonu la maîtriser arabe noonu la maîtriser français yàlla def mu nekk euh, koo xam ne yu bari ci ay dossiers yoo xam ne ci wàllu lu ñu doon traduire ci wàllu jële ci arabe bu ko yóbbu ci làkku tubaab wala jële ci tubaab ba ko yóbbu ci arab mu doon jóge ci Abdou Diouf ci moom la doon aw bu awee ci Moustapha Niang donc mu nekkoon koo xam ne ku ko doon assuré la parce que réeréwu leen ne jamono yooyu bariwul woon ay arabisant yoo xamante ne ni dañuy am ilmaam ci lugatay nii muy al arabiya wal faransiya maanaam dañuy mën a làkk xam maîtriser langue arabe ak langue euh, tubaab donc mu laaj euh, maanaam xam-xam boo xam ne bu leer lay doon parce que xam nga tradition officielle ci yi nga xam ne soit ay discours la wala ay ay lettre bataaxal nekkul rek nga dégg arabe mais dangay comprendre lu bari langage politique diplomatique économique euh, yu demee noonu donc yëpp daf koy laaj ba loolu yëpp gis naa ko ci moom parce que yàgg nañu liggéey ci loolu mu nekk ci koo xam ne ku yéwén ci xam-xamam yéwén ci li nga xamante ne ni moom la ko yàlla dénk comme xam-xam euh, moom Ahmad nag mu nekk koo xam ne ku nit ku bëgg discussion nekk nit koo xam ne ku yaatu euh, demoon na sax bay joxe foofu ay cours ci parce que defoon na nañu aussi benn école boo xamante ne ni presque euh, sanuye la bokk nañ ci ñu ko njëkk a ubbi muy IPUS dans les années quatre vingt six quatre vingt sept ñu bëri tey ci borom xam-xam yi yi tey yi ay dakatira mooy ay osatise tey jaamiyin ñoo xam ne c'est des universitaires des euh, oustaz jàng professeur ay docteur euh, ci école boobu lañu génne Euh, mu nekkoon école boo xam ne moom doon na fa joxe ay cours aussi euh, ci élèves yooyu euh, donc mu nekkoon aussi place boo xamante ne ni foofu mu nekkoon aussi ak ay cours du aussi parce que ñu njëkk organiser yi mel noonu ak institut islamique pour yi nga xam ne dañoo bëgg a jàng seen diine xam nga arabe doon na fa joxe cours mu fay joxe cours 86 87 ci IPUS. aussi foofu ITFIS boobu pour fàttali rek euh, mooy markaz la woon boo xamante ne ni centre euh, culturel la woon boo xamante ne ni mbooleem biñ ko tabaxee ñu inauguré ko en quatre cinq par Abdou Diouf maa ngi sax sama photo ak Abdou Diouf ci jour inauguration bi en mille neuf cent quatre vingt cinq euh, nekk na loo xam ne multaqa la cest à foo xam ne carrefour la fu ñuy daje mbooleem ñi nga xam ne ñoo doon borom xam-xam yi arabisants yi demoon na ba ci wàllu syndicalisme mbooleem yi nga xamante ne ni wàllu syndicat euh, ci wàllu arab langue arabe euh, ñoom docteur Thierno Ka ñoom docteur Doudou euh, ñoom Thierno kii kii Silla sëñ Silla ñoom sëñ Mbacke Seck ak ñeneen ak ñeneen ñu bari fa la ñu doon daje di fa def mais également am na ay conférence yoo xam ne bi mu paree euh, fa lañ ko doon defee yoo xam ne ci wàllu religion euh, yoo xam ne dañ ko fa doon defee euh, mouvement islamique yi d'ailleurs gën na tax suñuy relation entre maanaam ku mel ni rahmatullah alayhi Ahmad Ndiaye rahmatullah alayhi Sidi Lamine Niass rahmatullah alayhi kii di Latif Gueye ñoom ñëpp ba ci oustaz Babacar Babacar Gueye bu Ibaadu Rahman ñëpp ñëpp dañ fa doon daje ak ñoom oustaz Malick Ndiaye ñoom ñëpp ñu Ibaadu Rahman yal na leen yàlla yërëm ñëpp dañ fa doon daje parce que réunion yooyu moo ko doon indi mu mujj dem nag ak conférence yeeg yooyu mu jur benn affinité bu rëy moom nag jur affinité bu rëy boo xam ne Euh, jur na euh, gën a xamante euh, par exemple kii nga xam ne moom mooy oustaz Ahmed Dramé moom génération wu même promotionnaire la ak kii di Bamba Ndiaye ak Sidi Lamine ak imaam Dame Ndiaye moom nag bi nit ñi demee fële moom dafa dem fii nga xamante ne ni mooy Maroc fa la jàngee daam dem jàngale ji dem jàngi iraq ci euh, Sidi euh, ak kii jotuñu dem dem jàngale ji fii ci Sénégal donc mu nekk loo xam ne lu am solo ñu nekk nag ay borom xam-xam waaw yoo xam ne à chaque fois bu ñu daje woon rek dafay nekk débat yoo xamante ne ni yu am solo te mun naa wax ni ci débat yooyu la juddoo sax schisme mooy tashayyu ci la gën a maanaam commencé jël li nga xam ne mooy forme parce que aussi étudiants yi université de Dakar dañ doon ñëw di ñu fekk ci discussion yooyu muy am euh, discussion yooyu nag ci door muy ci fiqh muy ci taarix histoire muy ci usul hadis muy ci ilmul kalaam muy ci ilmu tawxid wa sifaat yooyu yëpp benn bu ci nekk dañ ci doon discuter di waxtaan waxtaan bi yaatu lool ñi féeti fii ñi féeti fële donc temps yooyu ci nag la commencé formé woo maanaam yenn gisin yi ak yenn déggin yeeg yenn taxawaay parce que bibliothèque bi maa ko yore woon ku ñu naan oustaz Ahmed lii moo yore woon lépp luy fànn funun yi mooy les arts ak yooyu mais également Ahmed Dramé moo yore woon lépp loo xam ne wàllu tarjama la ak yu deme noonu donc nit la koo xamante ne boroom xam-xam la ku ku ku ku yéwén ci xam-xamam la euh, ku ci tabe aussi koo xam ne euh, ci wàllu xam-xam aussi ci waxtaan ku ko mën a joxe la waaye ku mën a recevoir la aussi ti waa te kuy respecter nit la aussi ci wàllu xam-xam tu vois donc ni mu mel noonu ak léegi defe naa war na nekk quatre-vingt euh, cinq ans bi ma ko xamee léegi ni ma ko xamee noonu laa ko xamee euh, tey euh, renforcé wul yokkuwul lu dul ci mbaax ak euh, bëgg bi mu bëgg nit bëgg bi mu bëgg diine bëgg bëgg bi nga xamante ne bëgg na ko lu baax moom mi nga xamante ne ni moom mooy oustaz Ahmed Dramé ma am mbégte lool bokk ak moom nag lii nga xamante ne mooy groupe bi ba démb rek maa ngi ko naan maa ngi lay suivre euh, maa ngi lay suivre suivre sa diggante ak euh, Mouhamed Al Boussoyri Sall ci wàllu maanaam koo xam ne dañu ko jox xam-xam euh, mu jël ko muy ismullahi al azam ci dimbali ñoo xam ne ay tooñkat lañu ba nga wax ci ak moom bi lu mu tontu mu nekk loo xam ne am na solo ba ma expliqué qissa bi nga xam ne moo àndoon nekkoon ci diggante Balaam ibnu Baawura nga xam ne boroom xam-xam la woon yàlla jox ko boroom maanaam euh, euh, euh, li nga xam ne mooy xam-xamu ismullahi al azam xam-xam boobu nag mu jël ko di ci foo di ci def ba alquran indi ko parce que na la doon jàppale léeg-léeg ñoom Haman wala bu ñu amee lu leen të ñëw ci moom ne ko wala dañoo bëgg ci sa ismullahi bi yàlla may nga nga defal ñu ci dara donc ba bi loolu amee ñu ne dañuy jël euh, woo ko biñ ko woowee mu nekk sëriñ comme sunu sëriñ si yenn saa yi nga xam ne am na ñu mel noonu defal ko ci ismullahil azam bi ñu ne ko mu firaaw ne ne ko dama bëggoon nga fexe ba euh, Moussa ñu jàpp ko ak ñooñam parce que ñoom bu ñu leen jàppul danger la ñuy doon bu ñu revenir ci ñun ah ci noonu nag mu ñaan xemaara bi nga xamante ne ni moom la yor mooy mbaam bu jigéen bi mu defee ismu bi dóor eh, mbaam bi nanguwul dem parce que dafa bëggoon xam rek fan la jublu bu ko defee ñu ñu ñu dem foofu mu def ko ñetti yoon ci ismu bi bu ko yàlla may nanguwu ko bi nga xamante ne ni def na ko ba ñetti yoon Euh, euh, mbaam bi bañ a dem mu dóor mbaam bi mbaam bi ne ko waaye yow ndax danga may dóor parce que da ngaa bëgg yow euh, def ci sa ismu bi la yàlla may nga fexe nabiyullah koo xam ne kiiwu yàlla la yonent yàlla la ak ñi muy seen ñooñ di ay ñu gëm da bëgg ma nga ci sa nga jabar nga fexe leen xëcc ba jox leen na mi nga xam ne dafay tooñ waaye yow da ngaa yow li nga def baaxul pour bi da nga ko waroon a utiliser ci leneen ba kii Balaam bin Baawura dóor ko dóor mbaam bi ba rey mbaam bi bi mu dóoree mbaam bi ba rey mbaam bi gis nga yàlla indi aaya alquran e, muy allazi aataynaahu ayatina fansalaxa minha fa atbaahu sheytaanu fa kaana min algaawin walaw shi'naa la rafacnaahu biha walakinahu axlada ila al ardi wattabaa hawaahu fa masaluhu ka masali alkalbi in taxmil alayhi yalhas aw tatrukuhu yelhës gis nga donc mu nekk loo xam ne eh, ci mbaam ba la woon eh, gis nga mi ngi ne min man salaxa eh, fan salaxa fa axlada ila ardi dégg fan salaxa minha dégg nga gis nga mu jël ci def ci loo xamante ne ni lu anormal la lu lu lu lu lu lu lu teggiwul yi bu ko defee mu dévier li nga xamante ne ni moom la ko yàlla joxoon fan salaha minha euh, mu mu mu mu mu tebbi ci mu mu aw ci noo xamante ne aw ci fa atbaahu cheytaan topp cheytaane fa kaana min al gaawin mu bokk ci ñi nga xamante ne ni dañ leen furwaaye maanaam dañuy dox dañuy ñàkk solo euh, bew mu ne walaw shi'naa la rafa'naahu bu ñu neexoon ñu yëkkati ko bihaa ci aaya yooyu ñu ko jox mi ismu asmaullahi alxusna yooyu walakinahu axlada ila al ardi dafa nangoo daf moom dafa tànn pour des ci kaw suuf si donc tànn ci kaw ci kaw suuf soosu nag moo ko yóbbu walaw shanaa la rafaanaahu bu ñu neexoon ñu yëkkati ko ci walakinahu axlada ila al ardi wattaba hawaahu mu topp lii nga xamante ne ni moom mooy euh, bànneexam fakk fa masaluhu ka masalil kalbi comme xaj rek la mel in tahmin alayhi yalxas boo maanaam euh, mi ngi mel ni xaj woo xam ne day xaleet rek xalete mooy groñe day yuux rek yaa ngi dégg im taxmil alayhi soit nga jàpp ko wala nga bàyyi ko moom day day groñe rek day yuuxu donc gis nga ci laa ko waxe ma ko gis naa ni nga kiwee te effectivement loolu lu am la léeg-léeg yi dañuy naan téere ndax gis nga ko ci téere wala leneen fekk lu am la am na yu bari yoo xam ne nekkul ci téere téere nit moo koy bind te dafa am yoo xam ne dafa laaj raisonnement donc daal ci gàttal euh, mën naa résumer ci Ahmad euh, Dame euh, Dramé ni nitu xam-xam la nitu diine la ku am xam-xam la ni mu déggee arabe noonu la déggee français te aw na fu bare bare bare bare nag ci ci ci dundam jërëjëf al oustaz Cheikh Chérif Mballo ci leeral yu am solo yooyu xam naa laaj bi ma ciy teg moo di yéen jamono jooju nga xam ne jamono Abdou Diouf la yéen ñi nga xam ne dañ leen ràññee woon ci li nga xam ne moo di jàngu arab bàyyeekoo ci daara ñu tuddee leen ay arabisant naka ngeen doon dundee maanaam seen compagnie googu ci yéen ñi nga xam ñoom lañ doon tuddee arabisant ndax amoon ngeen alaaxa ak amoo ngeen relation ak lii nga xam ne moo doon gouvernement bi bu fekkee ne amoon ngeen relation naka ngeen def ba dugg ci gouvernement bi maanaam ba am ci position ak nu ngeen doon dundeek moom ndax nekkoon ngeen ñoo xam ne indispensable lañ maanaam ñoo xam ne gouvernement bi mënul a dem te yaakaarul leen ñaareel ba itam euh, naka nga gisee fi ne ñi ñuy tuddee arabisant yokku am na jëm ci pour jéem a yor réew mi ci seenam njàng wala yow da nga gis ne arabisant ci boppam fa mu nekkoon rek la nekk wala dafa gën a wàññeeku lan ngay tontu foofu am nga juróomi audio. Euh, jërëjëfati sang bi. xam nga question bu am solo la xam nga problème mu arabisant maanaam ñi jàng arab wala ñi jàng tubaab ak gouvernement bi nekkul lu bees boo ko doon yëkkati di nga yéeg a yéeg a yéeg ba ci colonialisme parce que xam ngeen colonialisme bi muy maanaam al isticmaarul faransi le colonialisme français def na fi lu mot juróom benn maanaam ñetti téeméeri at ak lu topp ñooñu bi ñu ñëwee ñoom dañu indi seen projet benn mashru boo xamante ne ni soqo fii muy maanaam benn projet culturel fikri intellectuel boo xam ne dañu ne parce que dañu ñëw civilisation bu ñëw li muy njëkk a xalaat mooy fexe li nga xam ne mooy les substrats mooy qawaid maanaam yi nga xam ne ci la sosu culture nit ki kooku il faut que ñu dundi ko ndaxte alquran moo wax ni inna al muluka ida daxalu qaryatan afsaduha wa jaalu izzata ahliha azillatan wa kazalika mu ne ñi nga xamante ne ni ay buur lañu wala dominateur ku man manti nekk rek wala yor pouvoir parce que mulk mooy pouvoir force doole quwa sulta mu ne bu ñu ñëwee Euh, li ñuy njëkk a def mooy isa daxalu xariyatan bu ñu liggéey ci dëkk afsaduha dañ koy yàq naka lañ koy yàqe wa jaala izzata ahliha azillatan naka lañ koy yàqee dañuy jël ñi nga xam ne ñooy ñu gën a tedd def leen ñu gën a torox niñ koy yàqee mooy dafa am lu ñu tuddee istigraab wala itiraab mooy maanaam aliénation waaw mooy maanaam fexe soril la li nga xam ne mooy sa culture sa saqaafa soril la sa caada soril la say sa sa valeur yi nga xamante ne ni yëpp ci sa aada la ak cosaan ak sa langue donc fexe ba euh, ne la yow doo ko baaxoo xamoo woon sa langue wolof wala sa langue pulaar wala sa langue bambara wala sa langue joora loolu du langue langue vernaculaire la mooy mbaam yoo xamante ne xamul lan la làngu àll bi la du làngu nit parce que kenn mu munu ci eh, maanaam jàngale xam-xam kenn du làngu sous làngu la maanaam du làngu par rapport comme bu doon seen làngu ñoom loolu mooy aliéné la istixraab fexe ba nga xamante ne ni da sori sa diine af sa duha ñu yàqal la yàq sa ngëm boo doon lekkee ak loxo ñu jël ne la du nii léegi léegi nii lekkee lii la ñuy naane say habitudes yi nga xamante ne amoon nga ko ci wàllu laaxu ngurbaan ci sama sëriñ sama mbokki euh, séeréer yi wala ci pulaar yi ñiiri buna wala ci euh, wala fi ñaleñ walla daxin yooyu yëpp ñu dindi ko indil la biftek indil la leneen loo xamante ne baaxatul ci sa santé baaxatul ci sa xel wa jaalu ay zata ahliya azillatan ba tey gis nga mu def ñi nga xamante ne ni donc ñi nga xamante ne dañoo baaxoon fonkoon seen société dañoo baaxoon fonkoon seen société fonkoon valeur yi ñu def leen ñu torox parce que dañ leen di aliéné dootuñu demati mais naka duñ leen bàyyi noonu de dañ leen di tuddee lu ñu tuddee assimilation assimilation mooy istiab istiab istiab mooy fexe ba nga xamante ne ni dañ lay xëcc ci ñi nga xam ni ñoom ci lañu nekk ñu won la ne li nga nekkoon baaxul léegi nag lii moo baax parce que nit ki boo ko génnee ci li nga xam ne ci la nekkoon euh, da nga koy dugal ci li nga da nga koy jox dara donc loolu la ñu def léegi nag la jàngal jàngal boobu nag euh, jàngal la tubaab jàngal la maanaam ñoom naka la ñuy naka la ñuy gise monde bi parce que xam ngeen monde bi sentir la concevoir maanaam espace la waaye aussi ak ni nga xamante ne ni sa zihniya naka nga ko joxe idée bi ban ban ban ban image nga ko jox donc loolu ñu indil la jox la seen civilisation jox la seen culture di la jàngal loo xamante ne gis nga demoon nañu ba naan les nos ancêtres les Gaulois tubaab noonu lay def bu ko defee loolu yëpp nag muy aliénation boobu istigraq ak istiab nga xamante ne ni moom lañ tuddee assimilation dafa am benn sookul benn qaida boo xam ne ci la tegu benn base base boobu mooy culture culture euh, France français daf ko jox ñaari connotation ñaari maana daf ko jox benn bi muy culture culturale mooy maana ziraaya zira waaw donc lépp loo xamante ne ni wàllu mbayla culture culturale mën na ko tudd parce que loolu ñu tuddee polysémie mooy maani taaddudul maani donc yoo xam ne dafa wute morphologie bi maanaam ni ñu koy binde noonu la waaye façon yi ni nga xam ne moom la mën a signifier dafay nekk loo xamante ne dafay wute ci noonu nag dañuy jële ci biir culture boobu tudde ko culture culturelle waaye aussi mu amoon beneen culture culture boo xam ne muy maanaam euh, ci wàllu éducation ci wàllu formation ci wàllu maanaam lépp loo xamante ne ni tarbiya la taalim la ci wàllu takwin loolu aussi dafay tudd culture ci tubaab kooku tubaab rek ci langue même yi nga xamante ne par exemple la langue allemande culture daf ko wutale waaw culture bu la waxee ne culture rek moom mooy lem ci wàllu aada caada ak cosaan kanta tubaab nag dafa jël culture bi mu jël ko jox ko ñaari moo parce que lu tax comme moom moo am politique gu ak assimilation maanaam istiab istigrab ak istiab donc muy aliénation ak li nga xam ne moom mooy assimilation il faut que lu mu lay joxe culture pour nga dund noonu la lay joxe pour nga dund ci sa yaram noonu lay joxe culture pour nga dund ci sa xel ci naka naka bi mu lay jox pour nga dund ci sa yaram mooy day ñëw fekk nga doon bay dugub di béy saaño di bay mboq di bay puloox di bay yëpp nga xamante ne ni saa yoo soxlaa yaay dundal sa bopp commerce am moom dafa ñëw dindil la ko muy culture vivrière maanaam ziraa bi nga xam ne da nga def pour dund mbéy bi nga doon def pour dund indil la mbéy moo xamante ne ni daf la koy tegal muy culture vivre de de commerce de rente maanaam boo xamante ne pour njaay la léegi pourquoi parce que bu la bàyyi nga béy sa tool bu la bàyyi nga béy sa sa sa saaño sa sa sa sa sa dugub sa sa sa yi nga xam ne moo ciy ànd te yow moom nga doon dunde depuis ay junni at kon du mën a tegu ci yow parce que léegi lan la man mooy fexe dindil la loolu ne ne même lekk yooyu baaxul ban mooy bu baax mooy bii ma lay indil muy mu indil la monsieur arène monsieur arène arène mu indil la gerte parce que ñu bari dañu yaakaar ne arène gerte la déedéet monsieur arène moo ko jële ci Amérique du Sud indi ko en Afrique pour ñu béy ko parce que bu leen fàtte noonu la ni mu defee noonu nag ci Sénégal ci wàllu mbay dundee noonu la yàqee mbéyu Burkina Faso mu doon Haute-Volta Côte d'Ivoire Mali par exemple Mali mu ne yéen bay leen coton yéen ak ak ak ak kii parce que dama koy soxla pour samay industrie maanaam euh, masaani yi nga xamante ne ni moom moo nekk Europe dama koy soxla donc yéen coton laa leen wax Côte d'Ivoire yow defal cacao parce que damay soxla kafe yow Sénégal sa suuf nangu na euh, béyu li nga xamante ne ni moom mooy gerte donc béyal gerte dégg donc xaalis boobu nag nga xamante ne léegi duggal nañ ko ci système de consommation production consommation tu loolu moom moo indi dem ba nga xam ne moo tardel euh, jaaykat yi ba nga xamante ne ni liñ doon béy di dundee léegi tubaab yi yóbbu nañ leen ci bëgg alal fexe parce que dañuy soxla dañu am ay ay ay comme le sieur Petersen bi ngi fi woon Petersen bu leen fàtte ne moom moo nekkoon société bi nal diwlin ak le sieur ba après mu tudd tudd Sonacos donc yooyu tubaab yi dañ ko defoon pour ko mu am ay maanaam bay bi ñuy bay gerte ñu mën koo jël mën koo def ci seen usines yi bu ko defee ñu mën koo exporter kooku da koy gis partout ici au Sénégal diwlin yi nga xamante ne mooy am solo yëpp gis nga ba léegi politique boobu yi qualité bi yëpp ci extérieur la jëm yi fi nekk presque mooy goudron vingt litres yi ak yooyu kooku sa nekkul loo xamante ne ni qualité am boo ko dee xool ak yi un litre yi dafay nekk loo xamante ne ni lu wute donc ci politique boobu nag noonu la defee aussi ci politique boobu politique boobu tubaab bi noonu la defee ni mu defee ci wàllu bay dund ba yàqu ko nga xam ne bëgguloon a béykat bi alal pour muy liggéey di ko fayal pour pour di ko di ko jaayal jaayal pour euh, ces industries li nga xamante ne mooy ay usines am yi nekk Europe léeg mu implanté fii pour mu mën koo defar mu ay produits mu manufacturé produits yoo xamante ne ay masnuwaat la ay muntijaat léegi nag euh, moom tubaab bi noonu mu defee ba nga xam ne léegi mën a boîte sardine mu indil la ko boîte de conserve yi mu indil la ko yi nga xamante ne ni da nga doon sonn ci di ko def deux jours trois jours pour defar ko mooñ ko ak yi mu defaral la ko manufacturer ko indil la ko léegi lan la laaj rek mooy nga nga nga boo jaayee boo leen ko jaayee na nga téye xaalis bi parce que ñoom it dinañ ko ñëwaat jëlaat ci yow donc ci gën a enrichir donc ci noonu mu demee la ñu ñëwaat gis ne ñoom dañu ne dañu am mission civilisatrice benn risala boo xamante ne xadaariya la Euh, euh, soqaafiya maanaam boo xam ne euh, dañu bëgg parce que peuple bi nga xam ne moom la ñuy ñëw muy peuple musulman fekk ko ak caadaam ak cosaanam ñoom dañu leen di jàpp ci seen même culture boobu ne xamuñu dara waaw ba dañu lay gëmloo ne xamoo dara musoo xam dara yow sax doon noo bind waaw musoo am xam-xam musoo jàng philosophie musoo am droit musoo am aar soo am leneen yow sax sa aar mi ngi nekk ci loo xam ne yaa ko jëlee ci wàllu jaamu xërëm ak yeneen maanaam dañu lay euh, nappaaje ci biir loolu nag nga xamante ne mooy nappaaje bi ci lañuy indi lii nga xamante ne ni moom mooy euh, euh, seen culture boobu mooy éducation waaw maanaam ci jàngal la lan mooy jàngu tubaab naan la nos ancêtres les Gaulois maanaam yow ku ñuul ki ak ñun ku weex yi ñoo bokk say maam ñuulul dafa weex parce que lu lu ñuul du lu baax gis ngeen racisme bi mu jël gis nga cet esprit esprit suprémaciste haadihi al zihniya tafabuqiya nga xam ne dafay jàpp ne képp ku dul moom moo la gën gis nga ci ci loolu aussi gis nga ni mu ñëwee ci wàllu éducation alxuraan bi nga doon jàng diine bi nga doon jàng say aada sa cosaan ni nga doon dunde benn amu ci solo waaw li ci am solo mooy kaay ma wax la li ma lay jàngal loolu nag pour ñu def ko dañu am ñaar ñu ñu àndal moom mooy waa église muy chrétiens yi mais également ñi nga xamante ne ñooy militaires yi waaw maanaam ñoom ñoo ànd moo tax foo dem ci camp di fa gis église am na benn euh, canonnier boo xamante ne ni moom mooy timonier plutôt moo fay nekk moom mooy dox lépp loo xamante ne ni muy jëm ci li nga xam ne mu xam ne mooy wàllu diine donc loolu mu nekk loo xamante ni lu am solo loo xam ne dañ ci war a bàyyi xel léegi nag ci éducation boobu lañuy ñuy def euh, culture la mooy seen caada boo waxee waree wax R nga ne re euh, Paris euh, gëm loola Paris parce que c'était pas pour rien Senghor doon wax ne l'an 2000 sera comme Paris l'an 2000 sera comme Paris 1958 rek bi fi De Gaulle di ñëw du taax yaa ngi fi woon ak yooyu yëpp urbanisé nañu Dakar ak yëpp mais Sénégal c'est la campagne mais sur le plan civilisation parce que moom homme de culture la woon donc ñoom ci seen tubaab yi dafa am ñu ci des prospectives ay yoo xam ne dañ koy def defee ak quarante ans cinquante ans dix ans ñu musulman yi rek ñun ñoo dul def def lu mel noonu donc tubaab yi ci loolu lañu ñu wéeru ci ci ci ci ci ba def li ñu def arabisants yi def leen loo xamante ne ni tey jël langue arabe euh, euh, euh, suufeel ko ne langue arab dafa arriéré arab yi dañoo arriéré du ñàkk solo musuñu duñu duñu duñu dañ leen dominer mënuñu contribuer ci la conscience universelle muy ak kaw ni mënuñu ci contribuer ci wàllu xam-xam wala ci wàllu xarala ak loolu donc gëm loola loolu euh, euh, euh, yàq sa diine déformé loola Muhammad sallallahu alayhi wa ko solo ci sa ci sa kanam ñàkk loo solo alquran ci sa kanam ñàkkloo loo julli ñi ci sa kanam donc loolu mooy indi langue arabe mu am problème bi nga xamante ne ne am na ko au Sénégal donc loolu moo tax aussi si li nga xam ne mag ñi tooguñu ko góor góor góorgóorlu ci xar ci seen tànk tubéy muy ci suñu sëriñ si ñëw ba ci union culturelle musulmane bu ñoom a alaaji Cheikh Touré jiite woon après sunu baay euh, Mouhamed Iyane Thiam jiite ko Ahmed euh, Mourchid Ahmed Iyane jiite ko ñu ñoo njëkk a ñëw taxaw nag formaliser loo xam ne pour gën a taxawal euh, xeex li nga la xam ne mooy langue arabe muy les débuts des années cinquante ci noonu la xeexee affaire bi di évoluer ñuy xeex ak syndicats yi ak IPUS IPS pour le progrès islamique Union pour le progrès du Sénégal ci SFIO ci Union pour le progrès islamique eh, progrès eh, du Sénégal après moom moo nekk PS bii tey ñu dugg ci arabisants yi dugg ci former ay syndicat ñooñu nangul leen ko ñuy xeex seen i droit di xeex seen seen droit ñëw ba 1985 84 bi Thierno Ka ñëwaa ñëwee ak doctoram ak euh, maanaam aussi gën a jox doole ñeneen ñi ñëw muy ñoom Oustaz Zane Ndiaye ñoom Ahmad Dam euh, Dramé bi ñoom Bamba Ndiaye ñoom Sidi Lamine Niass et consort arabisants yëpp dajewaat tu vois temps yow aussi Seride mi ngi juddu ñoom docteur euh, Daouda Diouf docteur Sireli docteur Khadim Mbacke tu vois ñoom ñëpp docteur euh, kii Silla sila Silla nekk ay professeur Assane Silla nekk de grands savants ñoom Maodo Sy moo Dabax donc ñoom ñëpp ñu ñëw ak ñeneen nekkoon suñuy suñuy suñuy nijaay waaw ak i suñuy mag ñooñu ñoo ñoo ñëw euh, gën ko joxaat gëdd ak syndicat yi ak lit yoo xamante ne yu àgg ci jamono boobu nag en cinq ci nag lañu ñu commencé jox koor dëgg dëgg dëgg dëgg li nga xam ne mooy l'enseignement de l'arabe muy dem nag ci jamono Abdou Diouf di dem di dem di dem di dem ba suñu jëmm yàlla tey muy dem di dem di dem ba suñu jëmm yàlla tey jii tey gis ngeen arabisant amul woon bac arab amul woon bac am na bac mënul woon dugg université léegi day dugg université te mën na dugg ci filière bu ko neex ci biir université ñi ngi combattre pour ci ENA mu école nationale euh, de l'administration ñi ngi mën a am comme ay diplomate mën a am ay ay inspecteur du trésor mën a am des douaniers ñoo xam ne yëpp ci langue arabe dañ ko def parce que arabe euh, boo dee xool aussi dans les pays arabes li nga xamante ne ni moo fa nekk euh, ci ci arab la ñuy diriger seen état te sax souvent ñooy gën a développer que sunu réew yi donc loolu mu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo euh, nga xam ne dox na ko langue arabe fii ci Sénégal ku mel ni ñoom oustaz euh, Moustapha Guèye dox ci dox bu am solo moom it waaw Moustapha Guèye ak oustaz Makhtar Dieng nga xam ne ñoom ñoo doon wax ci diine ci ara ci ci wolof euh, ci ci wolof mais ci ci euh, ci euh, rajo Sénégal nga xam ne ñëpp dañu leen doon déglu loolu aussi dafa nekk loo xamante ne lu ko lu dundal kiiwu arab la donc daal ci gàttal ñu nit joué nañ ci un grand rôle parce que ñoom ñëpp dañu leen doon accompagner di participer ci réunion yi di ànd ak ñoom ci lépp loo xam ne dañ koy def pour dundal li nga xamante ne ni moom mooy langue arabe fii ci Sénégal muy dem di dem di dem ba suñu jëmu yàlla tey jii tey gis ngeen arabisant amul woon bac arab amul woon bac am na bac mënul woon dugg université léegi day dugg université te mën na dugg ci filière bu ko neex ci biir université ñi ngi combattre pour ci ENA muy école nationale euh, de l'administration ñu ngi mën a am comme ay diplomate mën a am ay ay inspecteur du trésor mën a am des douaniers yoo xam ne yëpp ci langue arabe lañ ko def parce que arabe euh, boo dee xool aussi dans les pays arabes li nga xamante ne ni moo fa nekk ci ci arab la seen état te sax souvent ñooy gën a développer ko sunu réew yi donc loolu mu nekk loo xamante ne ni lu ama am solo nga xam ne dox na ko langue arabe fii ci Sénégal ku mel ni ñoom oustaz Moustapha Guèye dox ci dox bu am solo moom it waaw Moustapha Guèye ak oustaz Makhtar Dieng nga xam ne ñoom ñoo doon wax diine ci ara ci ci wolof euh, ci ci wolof mais ci ci ci euh, rajo Sénégal nga xam ne euh, ñëpp dañu leen doon déglu loolu aussi dafa nekk loo xamante ne lu ko lu dundal kiiwu arab la donc daal ci gàttal ñu jeune joué nañ ci un grand rôle parce que ñoom ñëpp dañu leen doon accompagner di participer ci réunion yi di ànd ak ñoom ci lépp loo xam ne dañ koy def pour dundal li nga xamante ne ni moom mooy langue arabe fii ci Sénégal jërëjëf euh, al oustaz Cheikh euh, Chérif Mballo ci leeral yu am solo yi di sant di la gërëm euh, ci dëgg-dëgg nag leeral gu am solo gi ci li nga xam ne moo di saxuwaayu njàngam arab ak colonialiste yi ni ñu defoon diine léegi al oustaz Cheikh Chérif laaj bi ci topp mooy ban résultat nga gis depuis ba nga xamee ne colonialiste yi ñëw nañ fi ci wàllum àq ak lu jëm ci wàllum diine l'islam gannaaw bu ñu nekkee quatre-vingt-quinze pour cent mu mel nii euh, siège assemblée national wala cour suprême wala daal fi ñuy dogalee mbir yi euh, du ci code de la famille du ci atte jëmee ci lislaam takk sëy yéeg miraas yi ak ci wàllu njaboot yi dafa mel ni bu Sénégal doon téeméer mën nga wax ne juróom-ñeent fukki ak juróom ñoom ñépp ay jullit lañ waaye mu mel ni àttee lislaam li taxoon ñu ne langage su arab diinaa taxoon mu mel ni dañoo euh, dañoo ñàkk dañoo ñàkk ku taxawal diine maanaam ci àtte ak àq ak yelleef li nga xam ne moo de famille ci réew mi lu waral googu googu yaasus lu ko waral lu tax ensemble amuñ fa kuy kaas code de la famille lu jëm ci wàllum miraas lu jëm ci wàllum lépp lu aju ci wàllum l'islam te ñu ne quatre-vingt-quinze pour cent yépp ay jullit lañu waaye mu mel nii quatre-vingt-quinze pour cent yi moo gën a néew doole cinq pour cent yi nekk ci réew mi seen bëgg-bëgg la wala seen ak ñàkk ànd la wala seen ak ñàkk pexe lan ngay tontu foofu kon diine euh, ci biir Sénégal euh, gannaaw diplôme yii yépp diine lan la gagné wala population bi dëkkee Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent yi lan lañ gane ci diine ci doxalin nga xam ne mu ngi koy dox di euh, jërëjëfati sang bi ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax ci ni euh, nga xam ne noonu nga posé question bi xam nga diine d'abord nañu wax lan mooy diine diine ci langue arabe mu ngi jóge ci baatu dunu maanaam lu jege euh, mu am euh, ay muraadifaatam mooy yi nga xamante ne mooy ànd ak moom muy li nga xamante ne ni mooy ak zil mooy maanaam soumission mooy nga jébbalu toroxal sa bopp xudu mooy nga wàcce sa bopp loolu moom mooy diine diine boobu nag nga xam ne moom mooy diine lislaam bu dee moo tax ñuy wax te moom moo tax ñuy wax lillahi diinul xaalis yàlla ci jëm boppam moom moom diine bi nga xamante ne ni moom mooy bi sell inna diina inda allahi al islaam wa maxtalafa alladina utul kitaaba illa min baadi ma jaatahum al ilm bariyan baynahum man yakfuru bi ayatillah fina la saril xisaab yàlla di wax ne diine bi nga xam ne moom la agréé moom la nangu mooy diine lislaam te képp koo xamante ne ni mooy nga beneen diine bu dul diine lislaam euh, euh, euh, yorewoo diine diine boobu nag laa bëgg ñu wax tuuti bu ko defee nga gis importance bi nga xam ne colonialiste yi lan moo tax duñu ko bi ñu dominer diine lislaam fii ci Sénégal joxuñu ko li nga xam ne mooy place ñoom ak ñi ànd ak ñoom parce que boo delloo ñoom ci waa latin bi nga xam ne ci la ñu jëlee seen baatu religion ñoom dañ ko jox ñaari maana ñaari sens dafa am relegare rele relegare relegare muy relire mooy maanaam dirasa aw qiraa saniya marra qiraatan marra saniya aw il qiraa yaani marra saniya muy relecture wala muraajaa ñoom loolu la ñu tuddee diine maanaam li nga xam ne da ngay da koy xoolaat di ko di di ko di ko baamtuwaat di ko delloowaat ñu jëlaat beneen sens diine dafa am donc la religion est un ensemble de lois et règlements divins qui inclut des croyances la dimension culturelle transactionnelle l'éthique la sociologie l'économie la politique donc léegi ñoom euh, ñoom Euh, lëmbaar bëgg ba la bëgg ba la bëgg comme ñun ñàkk nañu solo ba amatuñu doole ñun ñi nga xamante ne ni xam-xam yëpp muy ci mathématique muy ci physique muy ba ci droit nga xam ne Napoléon droit français bi le droit français code pénal français ci moom la ko inspiré bi mu nekkee ci euh, Égypte ci 1801 vous voyez ba ñu naan sax ndax est-ce que jullit la woon wala du jullit moom Napoléon donc di tagg diine l'islam ni nga xamante ne noonu la mel ñooñu nga xamante ne ni ñoom ñooy tubaab yi kolon yi ñoom bu ñu ñëwee am doole ci benn civilisation comme ni ko aaya bi waxoon innal muluka iza daxalu qaryatan afsaduha wa la izzata ahli azilatan wa kazalika yafaluun nee na dañuy toroxal bu ñu ñëwee ci dëkk dañuy dañuy dañuy dañuy eh, afsaduha dañu koy yàq wax naa leen naka lañ koy yàqee ci wàllu culture waaye aussi wa jaawla izzata ahliha azillatan yi yi nga xamante ne dañ leen xame woon ci tedd nga ñooñ la ñuy njëkk a bi ñuy dem fii xoolal ni ñu def dañu tànn koo xam ne ethniquement ci wàllu euh, aada ci wàllu euh, waaso euh, duñu ñu bari muy séeréer yi ci wàllu diine muy chrétien ci wàllu langue aussi làngam du lu du lu ñuy wax lu bari kooku la ñuy tànn jël ko ne ko nag jiital mbooloo mi parce que yow la ñu léegi boo tiitee ci ñun nga mën a delsi parce que bu fekkee dañuy jëloon koo xam ne ci li ñuy ci waaso bu moo gën a bari ci lim waxam moo gën a bari ci lim euh, ak ak ci ci nombre donc loolu day nekk danger stratégique ci présence ñi nga xamante ne ñooy colon yi donc loolu moo tax bi ñu gisee loolu gis ne ñoom it dañoo ñëw am mission civilisatrice dañoo war Euh, euh, euh, taxawu seen seen culture seen caada seen cosaan ñoom tubaab yi dañu war a fexe mu dominer bu l'islam parce que du du benn ak seen bos ci la ñu ñëw ne xam ne malgré que diine l'islam bi am na droit am na yooyu yëpp tu vois waaye nañu fexe li ñu dominer ko te loolu aussi lu li ci légitime la ci parce que boo ñàkkee ful la nga ñàkk fayda ba sa noon dominer la ci noo xamante ne sa ñàkk fayda moom moo ko indi ah nu mu la def euh, na nga ko nangu parce que ku ñuy watat muy dem du taamu fu ndig fu boppam di aw donc loolu moo dar jullit ñi dalaale sénégalais waaw dalaale leen ñu dominer leen am na fi ay résistants ñu euh, résister ay ci seenu sëriñ si ci ci caddo yi ñu xeex waaye amuñu doole pour mën a amuñu doole pour contrebalancer influence ak force bi nga xamante ne ni moom la tubaab ni moo tax jaawla izzatahilah wa kadalika yafalun mu ne noonu nag mooy règle établie c'est-à-dire règle boobu rek lañ def fu ñu dugg ci dëkk wa kadalika yafalun noonu lañuy def moo tax bi ñu ñëwee gis ne ñun ci wàllu droit islamique dafa am de des normes juridiques maanaam dafa am euh, euh, euh, maanaam tasalsulul harami lil maayiri qanuniya muy muy muy ce qu'on appelle l'hiérarchie des normes juridiques naka naka la tëral diine islam daf ko indi moo tax sànq ma leen wax ci ilmul kalaam ci ilmul aqaid maanaam naka la ñuy ci wàllu ngëm ci wàllu axlaaq jikko yi ci wàllu ahkaam wàllu atte yi dafa am ni ko islam gisee école islamique yi aussi indi ko muy ci shafiiya malikiya hanbaliya chia ñoom ñëpp mu am noo xamante ne ashariya ni moom lañu ñu ko gisee tiwaa xawaarij yi mu'tazile yi ci li jiitu tiwaa loolu di dem bu ba ci li nga xam ne mooy ilmul diin euh, usulu diin ñëw ba ci ilmul euh, maanaam at tawxid wa sifaat aussi yooyu yëpp maanaam dafa influé wu li ko influencé moom mooy maanaam ilmul kalaam waaw chiites yi wala mu'tazili yi wala ash'ari yi donc yooyu mu nekk yoo xamante ne am solo ñoom xam nañ yooyu yëpp ci la ñu gis ne jullit ñi am nañu Coran am nañu sunna am nañu ijma am nañu aql am nañu analogie muy maanaam qiyaas am nañu ijtihaad donc loolu muy lu ñu tudde ñoom ñoom it ci la ñuy ñu jël ñu jël ko comme li ma la waxoon ci Napoléon mu tuddee li ñu tudde bloc de constitutionnalité tu waaw muy muy la kutlatu dusturiya kutla dusturiya la boo xamante ni ñoom gis nga ñun Coran ñoom ñu indi constitution qanun ñun ñu indi li nga xam ne mooy sunna ñoom ñu indi loi indi majmua min al qawaid muy règlement indi décret muy marsuum marsuum boo xam ne riasi la wala wizaari indi li nga xam ne mooy qaraar mooy arrêté indi acte administratif muy qanun iraad ida idaari indi circulaire mooy qanun wala daairi wala taamim tu vois donc gis nga ñoom bàyyiwuñu dara mu rëcc lu fu islam indi teg ñoom indi nañ ci wet gi teg li nga xamante ne ni moom mooy euh, li ci wet ga pour remplacer ñu li nga xam ne mooy sunu ngëm léegi nag jullit ñi bu fekkente ne dem nañu ba ñoom ci wàllu pénal nga xam ne ci wàllu maanaam euh, code civil code civil moo gën a moo gën a tuuti moo gën a maanaam euh, jegewu ci jullit ñi mënuñu ko assurer seen bopp tey lu toll ni Sénégal divorce maanaam tey tas man nga man nga maye ci jàkka ji mais munoo tas ci jàkka ji tribunal rek nga mën a tase ci dëkk jullit ak quatre-vingt-quinze pour cent kooku nañu xoolaat suñu bopp kooku nañu xoolaat sunu bopp amul xool gauche amul xool droite nañu xoolaat suñu bopp ñu ñii ci suñu jëm bopp kon ñàkk fayra bi ci ñun ñii la commencé ndaxte euh, euh, bukki bu dabee euh, waxamaane ca doxin wala donc loolu moom moo tax structure yooyu nag nga xamante ne ni islam daf ko indi nga xamante ne ne boobu nga xam ne ci ilmul kalaam ilmul axlaaq ilmul ahkaam ilmul mooy aqaid mu indi structure bu mel noonu jullit ñi topp ñu si loolu waaw di dem dóorante moo tax réew mel ni Sénégal gisoo fi mu ay atte di dem ci assemblée nationale yoo xam ne li ko inspiré mooy diine amoon na ay sëriñ yoo xamante ne ni doon nañu ñefe pour loolu am ci ay sëriñ yoo xam ne doon nañu ñefe pour loolu am ci ci après n avant ci après indépendance yi muy alhaji abdul aziz si marhum alhaji Baye Niass euh, Serigne euh, Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma ñoom Thierno Seydou Nourou Tall et consort ñu bëree bëri bëri ci ay sëriñ ba ci cene ba euh, fépp dañu taxawoon pour ba ci xaadir yi ci laayeen yi pour que ñuy attewoo diine mais tubaab bi ci jëm ba pour wal na ne dafa am doole ci dëkk bi moom moo ci teg loxoom ba léegi ba tax na ten na non seulement loolu doyul mais dañuy défigurer lislaam naan l'islam dafa dafa dafa tardé dafa dafa def ni arabisants yi muusuñu euh, euh, yeewuñu euh, boo leen joxee dañoo soxor dañoo iñaan dañoo def ni cest wax boo loo xamante ne ni da ngay da nga leen di jox image boo xam ne ba ñoom ci seen jëmu bopp sax dañuy xaw a dañuy xaw a maanaam xeet seen bopp ba tax na dem na ba tey jullitu yi tey boo leen waxee ci wàllu maanaam droit euh, dañuy yaakaar ne rek mooy dagg loxo mooy code pénal islam dagg mooy dagg loxo ku sàcc ñu dagg sa loxo dafa mel ni population de sàcc yoo xam ne boo nee dagg sàcc loxo rek ñoom ñëpp ñu tiit donc dañuy jox image euh, islaam mauvaise image te loolu li ko indi mooy doomam yi yi nga xam ne tubaab bi def na ko fi former leen ñoom ñoo continuer ci loolu nga xamante ne ni mooy euh, euh, mauvais service bi nga xam ne moom la ñuy euh, rendre lii nga xamante ne ni moom mooy l'islam donc du dara lu dul loolu ñàkk solo bañ a xeex pour lislaam te loolu nag am na fi ñëw ci réew mi ñoo xam ne ñoo gën a jekk pour xeexal l'islam parce que bu ñu fi nekkee tey lislaam moo tax ñu nekk fii donc lépp loo xam ne dafa netti lislaam daf leen war a metti lu leen neex dafa war a neex lislaam donc ñoom seen jëmu bopp seen i bi ñu fi nekkee ñu jox leen dono bi ñu yore ko seen jur boo gisee ñu yóbbu leen géej wala ñu yóbbu leen ay résidence surveillée wala xeex ak ñoom yóbbu Gorée emprisonné leen ak feneen ak feneen fii ci Sénégal c'est parce que dañu doon bañ li nga xam ne mooy nooteel pour l'islam rek mën a jóg l'islam mën a am doole kaddu mën a jóg ci kaw wa kalimatullah hiya al ulya waxu yàlla moom mooy nekk ci ci kaw donc Euh, donale boo xam ne dañ ko war a assumer ndaxte wa jaalaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi laallahum yarjiun yàlla moo def kàddu gi mu nekk ci ndiggal góor yi ñu koy jokkalante pour di ci fàttali nit ñi pour ñu mën a delsi ci li nga xamante ne mooy ci njub ak ci mbaax ak ci li nga xam ne moom la yàlla digle moom la yonent bi tere ñu wax ko nit ñi nit ñi moytu ko donc du dara parce que dëgg bu ñu organiser fen bu ñu orga dëgg bu ñu organisé wul dëgg fen bu ñu organisé moo ko mun te lu duuf ak lu neew yi du benn nañu nekk quatre vingt cent pour cent yow cent pour cent boo xamante ne ni yow xàmme woo sax guddeeg bëccëg yow lan nga amoo benn importance minorité de qualité nga xamante ne quelques personnes rek ñoo lay diriger loolu mooy ñoo ñoo la ëpp doole xool ngeen ko tey ci Ousmane Galadio Ka ñu ngi ko jàpp tey parce que am na benn déclaration bu mu defoon di wax ak mbokk jullitam yi wax ci tudd ci chrétiens yi rek ñu dem tey tey tey tey jeudi bii tey di euh, le vingt quatre lañ ko jàpp yóbbu yóbbu tribunal dañoo mujj ajourné euh, procès bi parce que tudd na ci chrétiens yi ci dëkk boo xam ne quatre vingt quinze pour cent de musulmans mais kenn du yëngatoo parce que kenn ku ci nekk yëgul sax ne l'islam parce que dañu rey sa shuur maanaam sentiment yi nga doon am pour défendre l'islam amatoo boobu parce que dañ ko rey waaw dañ ko rey ci yow dañu tax nga waroon nekk jullit waaw dafa mel ni góor rek ñu rey ngóoraam waaw jigéen ñu rey jigéenam waaw donc saf dootoo ci dara donc daal li pour gàttal loolu rek la Serigne Boubacar moom ñàkk fulla ñàkk fayda ñàkk xam sa bopp ñàkk xam sa diine ak li ma la kii ñële nag xam bu baax lan mooy diine lislaam ak fu mun na leen yóbbu ñoom ñu indi yoo xamante ne ni dinañ ko mën a remplacer bu ko defee ñu man cee mooy moo tax yàlla nañu yàlla musal bu baax a baax a baax ci pexe noonu ah jërëjëf euh, al oustaz euh, euh, Cheikh Serif Mballo xam naa war nga dem fekkee mel na ndaje waaye xam naa laaj bi la ñu lay laaj nga yaatal ci tuuti bu ko defee ñu daal di la bàyyi waaye ñu bàyyi la nga dem ca li nga xam ne moo di waxtaan wu nga xam ne war nga ko présider waaye waxul jaal xaqu bawul la ndax yaa ngi ci biir kon ay Euh, jataay yu bare bare bare di ko ci am insha allah taala waaw euh, Cheikh Chérif moom dafa mel ni liñ bëgg a laaj lépp sa wax nga ko euh, wax nga it li julli di am te ñàkk ko nekk quatre vingt quinze pour cent yal na yàlla yërëm ñu sa jàppale ñu wax nga itam ne atte yi nga xam ne mboolem atte yoo xam ne rek tubaab bi am nañ ko lislaam am na ko waaye mu mel nii dañoo mënul dara dégg naa nga ne ndax dañoo mënul dara wala dañoo añaan ah kay niru na ne dañoo añaanante bu ñuy joxeñ baaraam it nit ñi xam ne ñañ lañ war a joxe baaraam léegi Cheikh Chérif Mballo damay ñëw ci léegi nag dama boole jullit yi yépp nag di laaj alquran ji moom dañ ko war a jàng di ko mokkal kese wala dañ ko war a firi rek ni baat yi ñëwee wala war nañ ko tadabbur génne ci li ñu ci soxla ci wàllum aduna nga jaamu yàlla gi moom ku ne xam na ko moom moom moom seen tub seen asamaan la ku ne xam na nooy jaamu yàlla waaye kay alquran li ci de njëriñ julli di dañ koo xamut dañ leen koo jàngalut wala culture bi ñu leen di jàngalee moo baaxut ñaareel ba itam bëggoon naa nga wax ma diine maanaam euh, diine l'islam ak science ndax mën nañoo ànd ci yoon di dox walla science da naan demal boo mënatul ma doog ñëw euh, ñetteel bi Cheikh Serif Balo fi may mujjee moo di lan moo tax julli gi ci biir adduna bi amut benn barab boo xam ne tubaab bi dañ fa dajee ak majoosi ak ñi nga xam ne ñoo di euh, mbooleem chrétien yeeg euh, yahud yeeg mbooleem yeneen religion yi yu mooy lislaam saa yi ñu dajee fenn rek ñooñu ñoom ñooy dogal nit lislaam dañoo gën a tuuti ci adduna bi dañoo déggut seen a téere dañoo àndut wala boog dañoo gëmul seen bopp lii laa lay mujj laaj ak it science num def ak li nga xam ne moo di alquran ndax kat dañoo gis ne ñàkkaa déggoo xuloo biir xuloo biti ba taluñu maanaam jéem a encadré li nga xam ne moo di diine xam naa laaj bi dafa xawoo gudd waaye yow nga ñëw ci benn par benn moo di suñu mujjantalu laaj ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal jàmm tawfiq ak taysiir waaye bépp laaj bu nekk ci biir rek mun nga cee ñëw benn bu ne benn ëjë wasalaamaaleykum jërëjëf euh, Cheikh Boubacar euh, ñu ngi lay santati bu baax di la gërëm ak ñu ànd ak ñun ñëpp xam nga alquran ci jëmu boppam dafa am lu ko metti lool ci jullit ñi ba yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko mettitlu mettitlu bu metti ba ay wàcc ci yaa rab inna qawmi ittaxazu hadha alqurana mahjura yow yenent yow yow yàlla yow sama boroom sama xeet ñu ne ay jullit lañu bàyyi nañu alquran waaw bàyyi nañ ko alquran dañ ko beddiku bàyyi nañu alquran xam nga loolu bi yonent bi wax nga xam ne moom ci jëmmu boppam Euh, taaqul maanaam dafay indi ci li xel indi damir comme ni ma ko waxee sànq euh, muy intellect damir muy conscience indi wax yi muy wax yi mu ne leen yéen gën ci diine ci lima ma sàkk kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas yéen a gën ci jikko ci lépp waaye ngeen di digle lu baax ci kaw ngeen di digle lu baax ak lu bon loolu yëpp taxul jullit yi tey ñu nekk euh, euh, euh, ñi ñi nga xam ne dañu waroon góor góorgóorlu gannaaw bi nga xam ne am nañu lu toll ni alquran lu toll ni yonent bi mu dirige société société yooyu yonent bi wone ci ak ñi mu nekkaloon muy saabaan yi ñu ñu def ci le lan mooy société humaine maanaam al mujtama al insani naka lay doxe ñun ñu ñàkk solo ñàkk fayda ba nga xamante ne ni mënatuñu maanaam jàngalin yooyu dañoo dem ba def daf ñoo réer te tey boo dee xool euh, euh, euh, li nga xam ne mooy contexte mooy situation mooy zarf mooy ta tawaaquf walla walla xarniya wala bi'a bi nga xam ne ci la dund muy environnement boobu dafa waroon a fexe tey yu yu yu góorgóorlu gën a mën a avancer gën a mën a def loo xamante ne ni texte bi li mu wax mooy nas bi les textes fondateur de la religion islamique muy alquran ñu jël ko dëppale ko li nga xamante ne gis nga mooy sa deuxième question muy ci sa xam-xam waaye malheureusement dañu am te mooy maanaam maanaam dañu fixé maanaam dañu dañu wayadi maanaam dañoo way maanaam xel yi way waaw xel yi wayadi yoo xamante ne ni euh, euh, li nga xam ne tey ñun ñoo war a la direction intellectuelle morale et spirituelle mooy maanaam ci wàllu diine ci wàllu maaniweer ci wàllu xam-xam jullit ñoo ko waroon diriger tey ñoo gën a ñàkk solo ñëpp tu vois te pourtant jullit yooyu demoon nañu ba nga xamante ne xoolal li njëkk ci seen aaye c'est alquran mooy iqra bismi rabbika alladi xalaq mooy maanaam jàngal ci sa tur boroom bi nga xamante ne ni moom moo sàkk xam nga kooku mu ngi lay woo ci njàng qiraa mooy nga xam la lu gis di liir loolu mooy liir waxul ak axfis waaw maanaam mémoriser comme li nga wax nii na nanga nanga nga na mooy maanaam na nga fi na nga na nga euh, euh, wattu déedéet dafa ne iqra qiraa mooy liir nga mën a nga jàng jàngal dafa mooy toog mémoriser maanaam wattul baat yi nañ ci bàyyi xel yàlla wax euh, ne hal yastawi allazina yaalamuuna yàlla wax hal yastawi allazina yaalamuuna wallazina laa yaalamuuna innama yatazakkaru ulul albaab mu ne ndax yem na ñi nga xamante ne ni xam nañu ak waaye boroom xel yi ñooy xalaat loolu nag bu ko waxee waxu rek jullit yi xel ñëpp ko am xalaat ñëpp ko am dégg nga xal yastawi allazina yaalamuuna wallazina laa yaalamuuna ndax ñi ñi xam ak ñi xamul du benn ku xam da nga koy gis ci jullit ak ku jul jullit innama yatazakkaru ulul albaab kooku ñëpp ko bokk xel bu doon jaay lamb ñëpp ko am tu vois donc loolu li muy wone mooy ne yàlla parce que dafa am lu loo xam ne dafa am te ci xam-xam la tegu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne man araada dunya fa alayhi bil ilm wa man araada al axira fa alayhi bil ilm képp koo xamante ne ni bëgg na xam-xam na dem ci maanaam na bëgg na àdduna na dem na ut xam-xam képp koo xamante ne ni bëgg na alaxira na ut xam-xam fa man araadahuma fa alayhi bil ilm képp koo xamante ne bëgg na ñaari àdduna ak alaxira utal xam-xam koo koy jeexal na wax mu dellu waxaat al ilmu wal imaanu taw amaani wa axawaani mu ne xam-xam ak imaan ñaar lañu yoo xamante ne c'est des siamos taw am mooy mooy maanaam ay seex waaw wa axawaani ay mbokk tu ñu munuñu tàqalikoo ñoom ñaar boo ci génnee benn bi rek déséquilibre am nga xool li nga xamante ne ni mooy sunu boromi xam-xamu diine l'islam li ñu yàgg a def xam ko moo taxoon précurseur science yëpp gis nga ci wàllu boo dee xool ma ma ma jox la ñan ñoo jëlaat les philosophies les mathématiques traduire ko surtout les philo la philosophie romane ak grecque traduire ko jël ko ba tey adduna bi tey mën cee jëriñoo tey ba xam-xam yi mën cee génn te ku ne philosophie nga wax mathématique xoolal al jaahiz ibnu bajja al al al al warraq ibnu ibnu ibnu ibnu qafa muy borom kalila wa dimna ibnu rushd al razi al-Farabi ci wàllu musique ci wàllu philosophie politique nga xam ne moom la ñu naan al al Aristote al al Socrate Sani mooy le second Aristote al-Kindi Avicenne Avicenne moom mooy Ibn Sina doo dem mukk ci benn hôpital en Occident te gisoo fa turam clinique wala leneen duñ ko tuddee même ba ci sunu la Dantec bii ñu ngi ko tuddee euh, euh, euh, clinique benn benn pavillon bu tudd Avicenne fii ci Sénégal ndax. lii nga xam ne def na ko comme ay œuvre comme travail ci wàllu médecine ci téeréem boobu tudd Lecanoo nga xam ne dem na ba ci quinzième seizième siècle Europe dañ koy jàngale def ko ci presque traduit ko ci plus quinze langues nga xam ne tey médecine moderne ci foofu la la jële kooku lan la woon musulman la woon ñi ma tudd ñëpp nga xoo Suhrawardi ci wàllu philosophie ak euh, euh, euh, Mir Mir Damat Mawla Sadrul Mutaallihin nga xool ñoom Ghazali li ñu def philosophie kan la ñu jël Platon muy Aflaatoon ak Aristote Aristote dégg nga nga xamante ne ni tey bu ñu demee tey ba nga xam ne les Descartes waaw les Kant muy la critique kantienne Kant wala Hegel ci la logique de l'être wala Heidegger et l'être wala ci Karl Popper philosophie des sciences ñooñu ñëpp wala morit wala hank wala wala euh, ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne mën naa leen tudd ba ci saint Thomas d'Aquin ci wàllu borom xam-xam ci wàllu sociologie ak histoire ñooñu ñëpp boo gisee tey ñu mën a xam seen xam-xam jullit ñi ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko def tu vois donc loolu mu nekk loo xamante ni lu am solo boo demee tey ci boo demee tey ci wàllu euh, chimie euh, ci comme ni ma la ko waxee ak ci médecine jaabir euh, euh, ibn Hayyan euh, moom moo jur alchimie dix-neuf premiers éléments yi découvrir ci ci chimie moom moo ko def mais comme ku amul kilifa nag jinne di sa kilifa moo tax lu génn rek ñu ne ñeneen ñi ñoom ñoo ko découvrir parce que amatul xilaafa islamiya amatul kuy xeex kuy wax ci turu l'islam léegi nag tubaab bi di ko jël ñu ne Lavoisier moo ko trouvé alors que c'est faux tous les éléments se moo ko njëkk indi moom Jaabir ibn Hayyan moo njëkk a wax ne tous les éléments se rapportent à un seul élément qui est celui de l'électricité et de l'eau qui se trouve caché dans la plus petite particule de la matière gis nga ko maanaam ndox ak ak ak ak ak ak safara boo leen boolee mën na jur e, e, e, électricité bi tartabitu jami al anasiri bi ahadi al anasiri al mutamayyiza wa hiya al kahraba wal maul al muxtabitayni fi asxari jismiyaatil madda loolu lu clair la kooku moom te kooku jaabir boobu Ibn Hayyan moom moo indi géométrie aussi mooy handasa te ku ne eh, eh, handasa nga wax aussi ci mathématique ci forme yi ak yëpp kooku kooku taalibe kan la taalibe imam sadiq muy sixième imaamu chiite imam sadiq mooy euh, euh, doomu imaam Muhammadul Baqir di doomu di doomu imaam al Xuseyn di doomu Ali ibn Abi Talib ak Fatima Zahra gis nga donc euh, lii nga xamante ne ni moom mooy liñ tuddee ci ci wàllu loolu boo demee téere bu tudd Villebrand Villebrand nga xam ne boroom xam-xam bu mag la ci ci tubaab yi bind na ko mais également Gustave Le Bon bind na ko aussi gis nga ci lu jëm ci wàllu hydrogène hélium lithium beryllium bore sulfone azote oxygène fluor néon sodium magnésium aluminium silicium phosphore yaa ngi dégg acide nitrique sulfurique acide nitro ah, chronosulfurique ak nitrate de phosphate alcool euh, euh, la soude euh, ak ah, soude ammoniaque yooyu yëpp musulman yi ñoom ñoo ko découvrir mais ñàkk solo ñàkk fayda ñeneen ñoo jël ko c'est tout amul leneen waaw amul leneen waaw te boo xoolee lii nga xamante ne ni jamono yi nga xam ne ñoom ñu ngi koy découvrir di ko am nga xool ci wàllu médecine ci wàllu pharmacie ci wàllu hôpitaux ci wàllu chimie physique mathématique algorithme tey algorithme bi kan ci kan la jóge ci ci ci Khwarizmi eh, Khwarizmi moom moo indi algorithme te ci miraas la ko jële waaw ci ay calcul mirage ci la algorithme nga xam ne traitement de texte ak d'image boo ko amul amul ordinateur bu lay mën a génneel texte wala image te ci moom la jógee data yi ci pour calculer ko ci algorithme lañ koy defee le traçage numérique yi ñuy def nii ci Covid bi nii yëpp ci algorithme la jógee te kooku jullit a ko def mooy mooy Khwarizmi ah ah donc euh, doy na waar doy na waar waaye nag euh, boo wàccee sa ànd ànd boo dem da ngay fekk waa ji toog ci jàpp njàmburam. c'est tout loolu rek moom moo dal jullit ñi ci wàllu astrophysique boo demee ci Ibn Haytham Ibn Haytham moom moo génnee moom moo njëkk def ci les sciences de de l'optique di xool maanaam euh, li nga xam ne mooy biddiw yi ci la ay Copernic ak Galilée ñoo inspiré wu tu donc loolu yëpp kan la woon ay musulman la woon donc euh, euh, li ko indi mooy musulman yooyu dañoo amoon xel yu sawar léegi nag jullit ñi seen xel sawarul làmmiñ yi moo gën a sawar waaw làmmiñ yi moo gën a sawar dangay ngay dégg dañuy waxa waxa waxa wax ba yow ci sa jëmu bopp da ngay sax jommi waaw da jommi ndax li ñuy wax teguñu ko fenn bu ñu bëggee nag sëñ sëriñ sëriñ Boubacar bu ñu bëggee dem il faut que ñu am méthodologie ci suñu jàng méthodologie mooy benn dirasa naqdiya lil ulum dirasa boo xamante ne yaani dirasa تهدف إلى تحديد يعني أصول العلوم يعني المنطقي tu vois donc c'est-à-dire mooy lu ñu tuddee étude critique des sciences destinées à déterminer leurs origines loolu moom mooy maanaam bu ñu ko dee gàttal mooy épistémologie nazariyatul maarifa c'est-à-dire fexe ba nga xam ne day am euh, science bu nekk dañuy xam lan la fan la jóge fan la jóge logique bi valeur bi ak portée bi maanaam maanaam logique bi logique gu xam-xam bi mooy mantiq bi valeur bi qiima xam-xam bi ak li nga xam ne mooy portée bi mooy li nga xam ne mooy hadaf bi bu ñu ko defee rek di nga gis xam-xam yi dinañ ko mën a parce que xam-xam boo gis dafa am maanaam importance ci nit parce que daf koy développé la mais fekk amuñu méthodologie manhajiya am épistémologie fexe xam yi ñuy jox par exemple xam-xamu xadis ñu bari yaakaar nañu ne lépp loo man a wax ñoom ci ilmul xadis rek lañu lay lañ lay yóbbu loolay seen débat ci l'islam alors que l'islam dafa am fikru islam yi dafa am ilmul kalaam comme ma leen ko waxee sànq nga xamante moom lañ tuddee philologie nga xam ne ci ahkaam ci aqaid ak ci ah, ak ci aqaid ahkaam ak ci ci ci ci ci li nga xamante ne mooy sharia tu vois donc yooyu mu nekk loo xamante ne ni jullit ñi dañ cee war a ñëwaat góorgóorlu bañ a bàyyi seen bopp ci utum xam-xam waaye fexe hadis d'accord kenn du wax mais am na fiqh am na histoire hadis histoire da lay dimbali pour nga xam hadis bi war na wër wërul parce que dafa am contexte sociologie da la koy jàngal parce que sociologie analyse des faits la jëf yi daf koy analyse est-ce que war na mën a nekk dëgg wala warul mën a nekk dëgg tu donc ñun dañoo war a góor góorlu dañoo war a góor góorgóorlu sang bi góor góorlu boo xamante ne ni dañuy dañuy dinañu fexe ba sunu xam-xam sunu diine bi maanaam kasr li nga xamante ne dojër ak ak ak tëzammur bi nga xamante ne am na nga xam ne ndox mi dawatul te ndox pour mu jëriñ dafay daw xoolal par exemple depuis que bi nga xamante ne Abu Hanifa nga xamante ne mi ngi mi ngi gaañu euh, euh, euh, mi ngi juddu ci quatre-vingt maanaam juróom-ñett fukki at après gàddaay gaañu cent cinquante ans après gàddaay téeméeri ak juróom mooy première mazhab ci ci sunna Malik juddu quatre gaañu cent soixante-dix-neuf imam euh, euh, Shafi'i gaañu juddu cent cinquante gaañu deux cent quatre Ahmad ibn Hanbal juddu cent soixante quatre gaañu deux cent quarante et un ba léegi ci fiq fiq sunna laay wax dafa taxaw koo wax rek ñu yóbbu la ci Maalik te fiq mooy commentaire du droit maanaam da nga def istinbaar ci ay textes génn ci li nga xamante ne ni contexte moom mooy zarf zamaan ak makaan parce que jëf du génn zarf zamaan ak makaan nga wax ci li nga xam mooy àtte loolu aussi dafa war a dem beneen jamono ñëw mu am ay yenn ay mamalik yaa ngi dégg ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay xanaafil ak ay xanaabil ñoo xam ne dañuy ñëw ñoom it indi seen gisin ci jamono bu nekk waaye warul mun a taxaw nekk loo xamante ne dafay esthétique loolu nag moom moo gaañ diine lislaam Maalik Abu Xanifa ak Xanbal bi nga xam ne am na mille quatre cent ans wala mille deux cent ans mille trois cent ans ñetti se junni ak téeméer ak ñaar téeméer wala ñetti téeméer ñooñu lan la ñu mën a indi àtte ci naano nanotechnologie kan moo leen yónni ci ñun ba ñu ne ñii rek rek rek ñoo war a wax ci diine lislaam ci fiq ci nanotechnologie ci biotechnologie tey ñi ngi wax ci transhumanisme fexe naka la ñuy jouer ak les gènes le génome humain yaa ngi dégg génn ci nite gi nekk ci leneen tu vois xalaat di la wax yooyu yow nga cramponné wu ci toujours loolu moo tax sa xadis ni nga déggee xadis moo tax jullit bi ni mu déggee xadis dégg nam ci xadis ni mu toll dégg nañ ci tafsirul quran ni mu toll dégg nam ci fiq ni mu toll noonu la diineem di xate wala mu yaatoo loolu nag danger la bu dee dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa kii ñun il faut que ñu ñu xam ne diine bi yónni wuñ ci ñii dañoo yónni Muhammad sallallahu alayhi rek la ñu yónni te dafa dafa firi xam-xam xoolal tey euh, connaissance ci médecine ah nga xool ci mathématique lépp ça avance ci histoire ça avance amul lu esthétique ci monde bi taxarraku inna fil xaraka baraka dee leen yëngu parce que ci biir yëngu la yàlla def tuyaaba loolu moom moo tax loolu ci jëmu boppam yàlla noonu mu ko defee moo tax buggul ñu ñu nekk ñoo xam ne dañuy am dégginu junni at ak téeméer ak ak lu topp dañu war a am suñu dégginu kii murru awlaadakum bi zamanin fa innahum xuliqu bi zamanin xayra zamanikum imaamu Ali alayhi salaam lan la wax dafa ne bu ngeen di yar seen doom yi yar leen leen ci seen euh, euh, euh, jamono parce que dañ leen maanaam immi dañ leen jur ñu war a dund ci jamono boo xamante ne bokk leen ak seen jamono Cheikh Ahmad Tijaan si al maktum radiallahu taala anhu tekki ko ci tekki bi rafet niru sa baay niru jamono ko gën tu vois léegi nag naka ngay mën a loo xamante ne ni ay atte yu yàgg la woon xoolal ba ci asmaa yu ci risaala ci ci ci awal ak saani mais dañ koy jàngale ba tey te pourtant wax d'accord mën nga ko firi mais yooyu ay jëf la woon pour ay société ay ay ay mujtamaat yoo xamante ne ni dafa am ay ay ay réalité ay waqaay yoo xamante ne ya ijtimaaya saqaafiya falsafiya taarixiya yoo xamante ne moo taxoon yaa ngi dégg des réalités politiques sociales historiques culturelles yooyu moom moo ci la ñu fëggee surtout parce que droit mënul sori li nga xam ne mooy histoire donc il faut que ñu essayer sunu bopp yi ñu ñu ñu ñu ñu ñu ubbi ko ñu ñu xam ne science dafa war a dox dafa war a dem waruñu basé ci kenn na ngeen xool même ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci ba ci loolu euh, euh, euh, boo demee li ngay gis par exemple xoolal comme Bukhari toog na ba cent quatre-vingt-quinze cent quatre-vingt-quatorze la juddu après gàddaay yi maanaam toog na presque lu xaw a jege ñaar téeméeri at mu doog a ñëw pour xadis yi ñu man ko euh, formaliser nga xool ku mel ni comme muslim deux cent six ñaar téeméeri at ak juróom-benn euh, la la la la ñëw la la juddu gane àdduna donc am na yoo xamante ni dafa war a avancer dafa war a continuer mais bu ñu toppee ne ulum islamiyya c'est-à-dire les sciences islamiques dafa war a dimbali koog les sciences humaines ak euh, euh, euh, sociales maanaam ulumul islamiyya yi ak ulum yi nga xamante ne insaniya la ak ya ñoom ñoo war a ànd pour jëriñ doomu aadama mais benn warul dem bàyyi beneen sinon doo comprendre xool suñu mbokk chrétiens yi mais dañ lay jàngal six ans septième année bi ñu jàngal la sixième année bi ñu jàngal la philosophie septième polémique lañ lay jàngal ihtijaaj ihtijaaj ihtijaaj mooy polémique mooy joŋante loolu sax borom daara yi xam nañ ko dañ lay wax benn aaye gàttal ko pour que nga àggale ko lii lan la ci fiq pour jamante donc loolu pour parce que ku ñemewul amul xam-xam ku ñemewul mënul àgg ci loolu mënul ñeme loolu donc loolu dafa yàgg am ba ci religion yëpp parce que loo doonul taalibe mënoo doon sëriñam léegi nag xel yu tayal lañu am am làmmiñ yoo xamante ne dafa sawar da nga ciy gis koo xamante ne ni ci tur wala ci sant lay lay lay ay pion ci wàllu diine ci wàllu xam-xam te dugu tegu fenn parce que xam-xam avant diine avant tout xam-xam la moo tax il faut que ñu delluwaat boo ma waxee ci wàllu fi may jeexale mooy boo ma waxee ci lan moo tax musulman yi sur le plan international euh, euh, euh, amuñu demuñu ah pourtant de yàlla de wanoon na leen ko waaw parce que yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi bi mu ñëwee pour joxe la dimension euh, euh, euh, islamique c'est-à-dire intellectuelle dimension universelle de l'islam ah yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi lu mu njëkk a def mooy dafa yónne ci Kisra yónne ci Najaasi yónne ci Xirqil muy buuru buuru Égypte Maqawqis yónne na fa yónne na ci buuru Kisra muy Égypte Kisra muy Perse yónne na ci Abyssinie muy Éthiopie Najaasi yónnee na ci dizaine su xirqin loolu day woon dimension intellect euh, maanaam universelle l'islam donc islam ci jëmu boppam mu xaajale ñaari ñetti yoon ñetti xaaj daarul islaam mooy maanaam baydatul islam dëkku jullit ñi loolu géopolitiquement mu indi daarul xarb maanaam dëkk yoo xamante ni dañuy xeex ñoom parce que dañoo bañ jullit ñi ak daarul ahd ak ñi nga xam ne euh, euh, duñu ay jullit waaye am na ay accord yoo xam ne dañu koy dañu ko seq ak ñoom donc loolu yëpp boo gisee mu indi ko mooy ne jullit ñi dañu war a maanaam béy seen tànk dañu war a ñefe ci wàll lépp loo xamante ne ni ordre politique la wala militaire wala économique wala commercial wala ñu tuddee superstructure islam def ci am baatam waaye bu ñu demee ba nga xam ne yàlla subhanahu li mu wax ne inna hadihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum faabuduni man kat man seen xeet wi wenn la man mii saa maay seen borom na ngeen ma jaamu ñun ñu dem nekk ay xeeti xeeti xeet jubootuñu ñàkk solo di dooleel suñuy noon di leen jox suñu alal par exemple ngeen gis li xew tey euh, ci ci golfe bi Arabie Saoudite ak Émirats Arabes Unis ak Soudan war a nuyu ak Israël kan mooy joxe xaalis bi pour dimbali Soudan un milliard deux cent yi pour wàllu dund un milliard e quelque pour wàllu euh, defaraat économie soudans ak trois gens yi nga xam ne dañuy accompagner Soudan kan mooy joxe xaalis bi mais émirat la ak Arabie Saoudite ñoo koy joxe Israël du ko joxe Amérique du ko joxe dañ naan ay eh, acca génne leen ngeen joxe donc affaire boobu la moo tax il faut que ñu ñu ñu ñu góorgóorlu fexe ba nga xamante ne ni l'islam dina dina dina jëlaat li mu ñàkkoon te loolu ke yàlla du wàcce malaaka yi pour ñu def ko ñun ñii lay wàcce waaw ñu xeex ko fexe ba nga xam ne dañuy rétablir l'islam te loolu mënul am lu dul dañoo nekk benn joxante loxo jàppalante euh, euh, euh, tole am tolérance suñu biir bu ko defee yàlla mën ñoo dimbali jàppale ñu maa ngi jéggluwaat bu baax di santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp ci kaw ba ci suuf fàttewuma kenn wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu